pour ma wax leneen dafay daal di compliqué parce que je crois que la spécificité de cette coalition mooy ça euh, elle nous a permis pendant presque trois mois de fraterniser am na ñoo xam ni xamoon naa leen fii ci coalition bi je connaissais Birame même si c'était de loin Babacar je le je le connais depuis plus de vingt ans. Euh, le professeur Mboup moom moo ñu jàngal xamoon naa ko Moustapha suma grand frère la xam naa ko mais la coalition m'a permis de connaître une personne assez spéciale muy le docteur Mamadou Djité non non je le dis souvent et je le et souvent j'aime à à parler dama koy wax au cours de la campagne ma ni man ni ma yéenee jiite mu gañe man yéenewu ko sama bopp noonu et je crois que tey jii waa TSS waa TSS am nañ une grande chance d'avoir le docteur Mamadou Djité comme maire donc ñu koy ñaanal yàlla yàlla def yan bi oyof ci moom ñu koy ñaanal ñi ñu àndal ñëpp te loolu comme ni mu ko waxee amuñu ci amuñu ci jaaxle c'est vrai que nit ñi kontaan nañ parce le, le, le combat que nous avons mené nous a permis ñu débarrasser wu d'une gestion gabégique de plus de vingt ans ñi fi nekkoon ñu jëlee leen fi donc seen normal que les gens soient euphoriques c'est normal que les gens soient contents mais man de contentement bi ak euphorie bi dama ko booleeg tuuti tiitaange parce que gis nañ Ceesuwaay yi espoir bi nga xamante ni judduwaat na ci ñoom les attentes sont mais je sais que comme ni ko docteur Djité xalaate nous allons yi arriver parce que nous avons tra euh, travaillé en fédérant no forces c'est-à-dire que ni ku ñu ku ñu woon ñun man personnellement di nga def campagne ba campagne bi jeex man la déedéet doyen Mboup a parlé des moyens docteur a parlé des moyens mais c'était tout simplement pour vous dire que comme le dit Lala, ce n'est pas l'argent souvent qui fait le bonheur Nous avons travaillé sans beaucoup de moyens, mais nous avons travaillé avec conviction, avec loyauté, mais surtout avec des jeunes, des femmes et des vieux très engagés. Parce que su fekkoon ni jeunes yi wala femmes yi wala mag yi dañuy ànd ak ñun te bu ñu xëyee fu ñu dem bu ñu toogee tuuti daal ni ñu ana añ bi wala ana reer bi ana ndox mi wala ana paas bi bu boobaa sore aurait été une pression énorme sur ñun mais yàlla mi ñu tiim xam na ni surtout boo ànd ak docteur Babacar Diop nga xam ne du lekk du naan moom moom dama koy wax ma ni Babacar comme genre malaaka du lekk du naan bëggul jël pause boo ànd ak moom moom boo moytul xiif dina la rey mais teewul jigéen ñi amul benn instant bu kenn réclamer dara su ñu defee caravane ba ñibbi si sax yow da nga leen di ñeewantal da ngay ruus parce que nga ànd ay jeunes dem ba minuit wala souvent ay une ñu ñëw ku nekk tasaaroo dem sa kër amul joxe paas amul joxe lekk amul joxe naan loolu engagement rek moom la ñu. donc cette victoire fayu ñu dañoo engagé kenn fayu ñu dañoo Donc cette victoire, cette victoire, c'est la victoire des jeunes. C'est la victoire des jeunes. C'est la victoire des femmes. Et c'est la victoire des plus âgés. Donc soyez rassurés. Soyez rassurés. Que ko avons defee au cours de la campagne, d'y di d'y sympathiser, lañ koy continuer di défaire. depuis bi résultat yi commencé génn ñu ngi jot ay coup de ay message et yàlla xam na ni da ngay bëgg a répondre message yëpp bëgg a wuyu téléphone yëpp mais doo ko mën donc ñi nga xam ni jéem nañu woote wala ñu envoyé message du suñu jotuñu tontu ñu comprendre ñu te baal ñu ko te xam ni incha allahu rabi on va leur revenir parce que lii rek lañ doon xaar pour que mbir mi officiel di leen wax ni nos portes bu sont ouverte parce que nous sommes les maires de nos communes nous sommes les maires de la ville mais nous sommes avant tout vos élus yéen yéen nañu fal xeex bi yéen yéen a ko xeex ci seen mbaax rek ngeen ñu jël ngeen jiital ñu donc nous sommes vos employés nos portes vous seront ouvertes et nous allons travailler en parfaite synergie du ñu xeeb xalaatu kenn du ñu xeeb xam-xamu kenn ku ci nekk rek am nga loo xam ni mun nga ko apporter à la construction de l'édifice mënuñu tudd turu ku nekk ci remerciement yi mais vous nous permettrez tout simplement ñun ñi nga xamante ni ñu ngi nekkoon ci caravane yi nuit et jour ñu jël nuyoo teg ko ci loxo ku mel ni le doyen Aliou Diop parce que malgré son âge doyen Aliou malgré son gis nañ ko mu am taxawaay boo xamante bi nii xale yu bëri sax mënuñu ko am le docteur Mbengue le professeur Mbegere Moustapha mi nga xamante ni mooy suñu mag et j'en passe ku ma tudd sa tur rek nga xam ni ku lim da ngay juum je n'oublierai pas nos braves dames la dame Marème Ndiaye soxna Khoudia Mbow Mame Diarra Diagne ak ñeneen ak ñeneen ñoom madame Gassama ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ni mënuñu tudd seen tur ñi nekkoon nag ci suñu comité électoraux yi nos directeurs de campagne l'excellent directeur de campagne du du candidat Adama euh, Babacar Diop Adama Diawara amuñu fayam Omar Mboup moo directeur de campagne Omar Traoré Falilou Ndong et je n'oublierai pas les jeunes Bamba Baldé ak ñi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoom lañu àndaloon donc à travers eux ñu remercier l'ensemble des jeunes et l'ensemble des femmes de la coalition Yewwi Askan Wi pour vous dire encore une fois que cette victoire et la vôtre li doyen Mboup wax nag je crois que il a été extrêmement clair Au niveau de la ville de Thiès, nous avions u plus de 9000 voix, 9751 voix de différence avec la coalition Benno Bokk Yaakaar arrivé deuxième. mais xam nga comme ñoom dañoo perte fépp il fallait que ñoom ñu am fu ñu langaam fi ñu langaam nag mooy ci département bi parce que xam nga ci département bi foofu ngay mën a am yenn bureau yoo xam ni xëy na sori na wala amuñu fa représentant ñoom ñu mën fa dem langaamu fa. mais comme ni ko doyen wax ñun waxuñu quatre vingt dix neuf pour cent de cent pour cent la ñu wax cent pour cent la wax te comme ni mu ko signalé bëri na ci ay PV yoo xam ni noté nañ ci ay irrégularités et nous savons que si soo irrégularités sont rectifiées le doyen Mboup sera désigné président du conseil départemental de Thiès inchallah donc encore une fois ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. amuñu seen fay yàlla mi am seen fay yàlla leen yàlla fay ngeen ñaanal ñu aussi yan bi oyof ñu bañ leen décevoir et que dans cinq ñu dajewaat fii yëpp ñun ñëpp kenn bañ a manqué yàlla may leen yéen ñëpp wér ku ci nekk ci li ngay yëngu yàlla defal la ci xéewal ba loolu yokku ñu dajewaat ci Cees koo xamante ni Cees ku naat lay doon Ceesu teraanga lay doon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant dinañ jël suñu temps kenn ku ne ñu saafoonteeg yow nuyu la sargal mais xam leen ni yéen ak suñu biir xol on est on est très fiers de ngi sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ni moo ñu may ñu def campagne boo xam ni bu mucc ay campagne boo xam ni fu ne dugg nañ doyen bu dafa baax rek di ma sant ci affaire moyen mais ñi nekkoon ci coalition bi ñu ànd ci campagne xam nañ ni bu dul gor yu baax yi du ma campagne boog suma campagne sama campagne du demee noonu ndax ku ne xam na ni nekk mais Birame Souleye Diop le maire de la commune Thiès Nord maître Ousmane le maire de la commune Thiès Est docteur Babacar Diop le maire de la ville je vous remercie vivement devant ces populations-là et ces militants qui nous ont fait confiance parce que bu dul woon ñoom caravane yi ma def yëpp sama commune ñu bari xamuñu ko ñoom ñëw àndal na c'est-à-dire je veux dire par man la ci dugub kese du ma def caravane mais on a bien travaillé ensemble moo tax li Tafa wax léegi am solo cet esprit d'unité là et de collaboration et d'entraide et de solidarité il faut qu'on continue ça parce que ma ni suñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al day wax ni lu am rafet du am lu woon ñaaw nga victoire bi am na rafet na fa rafet di yem mais su amul rek gàcce am ndax waa Thiès ñoo soxla woon victoire waa Thiès ñoo soxla woon ndam waa Thiès ñoo soxla woon si wat devant les Sénégalais et devant la diaspora devant le monde entier loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di ñu yàlla boole ci askanu Thiès je suis fier d'être Thiessois vous êtes fier d'être Thiessois on est fier d'être waa adduna waa Sénégal waa Thiès ñu ngi nii wan leen ni Thiès dëkku bañkat la dëkku ngor la dëkku jom la dëkku borom ay fit leen di sant bu baax ci loolu beneen bi nag mooy victoire bi dañ koy jël avec humilité parce que dafa am lu ñu wax ak waa mooy suñu programme la ñu leen jaay wax ak ñoom discours ñu dégg ko daal ñuy wuyu ci discours boobu ñoom seen jaan wàcc na parce que fexe nañu ba li ñu waxanteeg ñoom ñu dégg ko li ñu bëggoon ñu defal ñu ko mooy ñu dégg dégg nañu kon ñoom seen jaan wàcc na donc ils ont rempli leur part du contrat kon nag ñun ñoo ci des ñun ñoo ci des ma cité waat ko suñu Cheikh Ahmed Tidiane si daf ni njàlbeen bépp njàlbeen xam nga njàlbeen gi neex na mooy am nañ victoire mu ni bépp njàlbeen soo séer soo bàyyiwul xel mujj doo nit lii ñuy feete nii war nañ fi toogaat dans cinq ans def suñu bilan bu boobaa la feetu di gën a neex ñu di gërëm su lay jóg yaa ñu defaloon image 3D war ñu stade ba nekk Thiès Nord li ñu dara nekk dañ koo bàyyeeg mbaam yi ñu ni biram loo fa def mu ni stade bi def naa ko terrain gazon xale yaa ngi fay fubal am na ay salle de gymnastique am na salle de am na salle de karaté am na salle de naan ñu koy utiliser entre autres réalisations ñu ni Babacar yaa ñu waxoon cantine scolaire yaa ñu waxoon avenue du camp pavé ko mu rafet ñu xool ñu gis ni loola réaliser wu ñu voilà voilà le bilan de Babacar Diop entre autres ñu maître Ousmane Diagne yaa ñu waxoon centres sociaux yi yi fi yi nekk Thiès Est centre yi dafa pauvre dara nekk fa équipé nga ko ñu ne lii voilà entre autres réalisation ñu ñu ne docteur Mamadou yaa ñu waxoon avenue bi jaar Barthélemy da ko waxoon da koy def espace vert nit ñi di féexlu yeneen communes yi sax ñëw di fa féexlu ñu ne voilà réalisation entre autres gis nga loolu gis nga loolu foofu ngeen ñuy xaar foofu la ñu nit ñi di xaar foofu la ñu di xaar foofu aussi la ñuy xaar suñu bopp ba tax yar boobu duñ ko fàtte moom à partir d'aujourd'hui xam leen ni ñu ci seen i soxla guddeeg bëccëg dootuñu nelaw dootuñu yendal dootuñu fanaanal ci seen i soxla la nekk guddeeg bëccëg na ko waxee bu leen hésité mukk war seeti docteur mu jiite maire yi di bu ma demee gardien bi dana ma doo fi dugg wala day nelaw wala day sieste Seydina Omar ci xiisa ba ustaas yi dafa am ku ko ñëw di seet si fekk ko muy sees du ñu ni ñu fëgg ko mu ni damay sees doom ji xam nga li olof di wax ni ah, doom ja ja waaye tamit doom ja baay ja doom ji dégg loolu ni ko may yow xanaa da nga da nga sa bopp bi dafa dafa wëlbatiku yow ñu dénk la ak alalu sees mu daal di sujjóot comme ni ko sama waay defee léegi bi ñu annoncé victoire bi <laughs> bi sujjóot bu solo bëri ko bàyyi yóbbu waa léegi mu daal di maa ngi sant borom bi bi mu mayee doom ju mel nii voilà de la responsabilité foofu la ñuy donc n'hésitez pas nos portes seront ouvertes à tout le monde nous allons écouter tout le monde nous allons travailler parce que Thiès a besoin de tous ses donc foofu la ñuy xaar te incha allah foofu ngeen ñuy fekk.